alors euh, woykat bii di euh, Viviane Chidid moom daje na ak Nomcebo. Euh, Nomcebo mhm. elle s'appelle di benn waykat boo xamante ne bon sud africaine la ñëpp xam ko ci tout titre boobee nga xam ne moom la defoon muy Jérusalem nga xam ne ñëpp fàttali nañ ko donc moom Viviane. ku ne xam ne actuellement dañ ko nominé woon rek ci li nga xam ne moom mooy Trace Awards yooyu nga xam ne mu ngi mhm. war a am Rwanda foofee ca Kigali le 21 euh, voilà le le le 21 bi nga xam ne ci la ñu jëm quand même vingt 21 octobre donc muy mbir moo xamante ne moom Viviane actuellement mi ngi Kigali waaye moom Viviane ku ne xam na Viviane ay performance am ak euh, fi mu jëlee li nga xam ne moom mooy musique sénégalaise ak fi mu ko yóbbu ñu bëri sax demoon nañ bay xam ne ni que moom Viviane donc li war rek mooy mu jéem a décrocher ay duo ak ñi nga xam ne rek ñu ngi ci li nga xam ne rek moom mooy ci àdduna bi mm. te ñu bëri xam nañ leen te bu ñu wóyee rek dañ leen di dégg <coughs> moom Viviane nag jamono gi mu nekk yi ci la defee woon rencontre ak euh, woykat bi di Nomcebo donc mu doonoon ci complicité boo xamante ni ñu bëri rafetlu nañ ko te bi ñu xëyee ñëpp a ko partagé quand même ñu daal di dem ma jëgtal leen vidéo bi ci rencontre bi nga xam ne ñoom ñaar ci la ñu defoon ngeen euh, découvrir vidéo boobu ak li ci am bu ko defee ñu ñëwaat commenté ko. <laughs> Can you see what she's doing? She's, trying, she no, she's trying to match my voice because I've got a bold voice. Jerusalem, Ikayalami. Thank you so much, guys. We love you. it's amazing. Thank, Thank you so much. Tamo Ndasakoloma. Ndasakoloma. Can you see what she's doing? no, she's trying to match my voice. Ndasakoloma. Ndasakoloma. Woo! Ndamatsere dum duman. Ndasakoloma. Ndasakoloma. Woo! ci euh, turu euh, Nomcebo Zikode donc di euh, benn sud africaine boo xamante ne woy bi mu fi woy muy Jérusalem ñëpp xamoon nañ ko muy quand benn voilà ko auteur ki nga xam ne rek moom mooy bon Moussa donc ci type boobee nga xam ne defoon nañ ko di benn DJ boo xam ne ñëpp xam nañ ko mais ci mujjantal bi ñoom ñaar dañu mujjoon am ay jafe-jafe mm-hmm. boobee nga xam ne ñëpp xam nañ ko mu dem quand ba toll ci 500 millions de vues sur YouTube parce que tout simplement àdduna bi ñëpp ko partagé woon donc ñu dem ba gis quand ñoom ñaar ñu tase foofee nga xam ne moom mooy ca Kigali euh, ci euh, cérémonie boobee nga xam ne mi ngi waroon am ci Trace Awards yooyu nga xam ne Viviane dañ ko ci euh, nominé woon quand même muy ndamu sénégalais mais aussi ñu gis complicité bu am solo bi comme pour dire que Viviane liggéeyam nit ñi ñu ngi koy bàyyi xel. Mhm. donc lii nag di mbir boo xamante ne ñu bëri jàpp ne Viviane ñi ñooy ay ah, a quand ba am place bu am solo fii ci Sénégal fexe aussi ba Afrique ñëpp mm-hmm. ràññeekoo ci ay tibam bu ko génnee gis nañu aussi à travers les commentaires bu ay euh, tibam génnee aussi ni ko nii di bàyyee xel mais aussi bokk na tamit ci respect bi nga xam ne africain yëpp wala boog africain yëpp ñi nga xam ne ñu ngi def musique fii ci Afrique di ko bàyyi xel bu baax a baax mu moom Viviane on espère bien que ni Euh, rencontre bi aussi dina doon quand même euh, benn moyen bu leen di permettre également ñu am ay type yi nga xam ne nañ ko def wala boog mu doon benn duo boo xamante ne su génnee ñëpp dinañ ko bàyyi xel bu baax a baax. Mm-hmm. abi ah, en tout cas elle est mm-hmm. Viviane nga woo ko si mbalax ma wuyu la. rap Viviane wuyu la. foo ko woo ñëw afrobeat gis nañ yi mu fi def. donc mm-hmm. euh, macha allah dañ koy félicité waat ci nomination bi. donc euh, di ko encourager bu baax a baax ci li nga xamante ne moo des ci carrière musicale